Publiez et consulter les meilleures annonces immobilières sur immobilier221.com. Immobilier 221 site immobilière Fiche ci Mohamed Sénégal Nick, xam nga bëgg luye studio le gars immobilier 221com immobilier 221.com point location ngeen ak képp koo xamante ni nii bëgg nga joxe sa xalaat ci tolluwaayu réew mi moo xam nag sujet bu mu mënti doon moo xam muy jëm ci wàllu lamb bu jëm ci sport jëm ci wàllu politique wala leneen ak leneen Sénégal 4 TV dañ leen ubbil bunt bu bees jox leen numéro téléphone boo WhatsApp de 77 507 27 29 su ko defee nga mën a enregistrer sa audio wax li nga xamante ni nii mooy sa xalaat su boobaa Sénégal 4 TV daan ko traité. daa publier ko bu ko defee askan bi yëpp daal di jot ci li nga xamante ni mooy sa xalaat. alaykum mbokk internet yu senegal 4 TV dal len ak jam ci sen xibaaru làmb xibaaru làmb ngeen koy am ay bis yu nek ci set bi ngeen tanal sen bop di senegal 4 TV di ci ànd ak seen mbokk sen xarit sen doomu ndey Assane Dia tay mbokk yi sen xibaaru làmb dañ koy doore nak ak mbeur bi di euh, ñukoy wax le roi du simpi tudde ko guy gi voilà euh, chef de file école de lutte bu Morfadam euh, kaddu yi nak mi ngi ko rotale fele ci diwanu Gambie bi nga xamanteni ki ñuy wax pap mbay nek poulain itam bokk ak moom benn écrit doon na fa amal combat fële ca diwaanu Gambie digganteem ak. Euh, Double Tyson voilà Pape Mbaye ak Double Tyson ñoom ñoo doon bëri dimanche bi ñu génn fële ci diwaanu Gambie kii di Pape Mbaye euh, numéro 2 bu école de lutte euh, voilà Morfadam bi nga xamante ni guy gi moo di chef de file ba moom moo ko daan voilà ginnaaw boobu le combat nag euh, guy gi rotal na ay kàddu yu yaatu sax bu ñu sukkandikoo ci journal bi di suñu làmb voilà guy gi dellusiwaat na ci lan moo waral teewaayam foofu ci diwaanu Gambie muy wax ni dafa ñëw Gambie ngir dooleel ki nga xamante ni moo di Pape Mbaye numéro 2 parce que nag rakkam la xarit. xaritam la doomu ndayam la bokk na ci ñi nga xamante ni dañu ko bëgg lool dañu ko safoo lool te di ko tiitaroo voilà loolu moo tax ba moom daal ñi nga xamante ni dafa bokk ak ñoom écrit bokk ak ñoom géejawaay sax bu ñu amee bés dafay ñëw taxaw ci jàppale leen soutenir leen vraiment muy euh, acte boo xamante ni euh, ak lu làmb yëpp rafetlu nañu ko moom guy gi mu def ko ci diwaanu Gàmbi ba tey itam dellusiwaat na ci problème yi nga xamante ni moo am ci diwaanu géejawaay voilà mu yëkkati ci nag ay kàddu yu rafet a rafet euh, baax juboo gi nga xamante ni nii mbëru géejawaay yi juboo nañ ko ci seen biir écurie yi nekk biir géejawaay tamit àndaat nañ ko ci seen biir guy gi wax la wax na ni rafetlu na loolu bu baax a baax dem na sax ba ci biir muy dànkaafu di wax ni amul kenn koo xamante ne ni mën ngaa jaxasee ay mbëru géejawaay voilà loolu booy ay kàddu yi nga xamante ni guy gi na ko ba tey itam dellusiwaat na ci combat bi nga xamante ni moo war a am diggante euh, Boy Niang ak ki ñuy wax Lac de Guiers numéro 2 voilà muy dànkaafu di ñaanal ki nga xamante ni tamit moo di Lac de Guiers numéro 2 voilà yàlla na am ndam ci kanamu Boy Niang parce que nee na xëy na sax Boy Niang daan na ñaari yoon mbëru géejawaay waaye loolu tekkiwul ni mu moy war na tax mu meun Lac de guerre numéro 2 mom dal limu gëm te japp ko moy que ni Lac de guerre numéro 2 war na mën daan bu baax a baax nga xamanteni ni modi moo Boy Niang voilà biñu ko laajee nak ba egsi ci diggante combat am ak site voilà ndax dafa jóge ci combat ak Siteu boobu ba légui kenn gisatu ko muraar voilà guy gi tamit euh, neewoon na sax bu a wax ci loolu waye wax na ci ndax nee mom moom bi muy bëree ak Siteu xamoon na bu baax a baax ni même bu daanee Siteu itam euh, combat bobu mënu ko yóbbu fenn voilà mënu ko yóbbu fenn combat bobu combat bi ki mu arrangé moy di Siteu parce que Siteu mom la ci aw touram di gëna yokku tay si tay bu ko daanon tay si tay daf koy permettre mu dugg cour des grands mom nak mu daan Siteu amulu ko benn njëriñ parce que famu nekkon demb ak barki demb ba nga ni fa la nekk voilà dem na sax bay wax ne ay jafé-jafé wala bok bañoon a def année blanche képp moy li taxone mu jël euh, site voilà jël nako duma nako dan nako après da fay xolat li nga xamanteni mo nek ci kanamam voilà ñu laaj ko nak niko sa diggante yow ak Ama Baldé voilà parce que gis nañ ñu ne kay da nga def ay sortie diko demander fofu nak guuy gi xaw pétaler les plombs parce que dafa dag sax ki nga xamanteni moko don ko moko don moo question yi ni ko foofu dama bëgg carte gi leer benn yoon man mësuma taxaw di laaj ki nga xamante ni moo di amaa Baldé ndax bu ngeen fàttalikoo en 2012 bi ñu dajee man ak moom dama ko duma door koo daan yàlla dogal ñu boolewaat ñu man ak moom en 2013 xëy na la fa xew ñu ñëpp gis nañ ko benn coup boo xamante ni Ama Baldé dóor na ko ko xam nga boo affaire bi carte gi xaw a jaxasoo mais guy gi nee na moom ba ilaa yow mi din du mës taxaw di dëkk Ama Baldé tey tey bu dëkk dee am normalement Ama Baldé mooy ki ko war a dëkk parce que moom moo war a ñëw ci moom pour jël ci jël si revanche am kon nag toog bañ a bëre taxut mu muy mu taxaw ci télé yi wala ci rajo yi wala sax ci internet bi nan dafay dëkk Ama Baldé moom daal bu dépassé dee am moom moo dépassé Ama Baldé voilà wax na tamit ci li nga xamante ne nii euh, dànkaafu na bu baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ne xëy na tey ñi ngi am yaakaar pour bëre ak guy gi voilà mu dànkaafu leen ni daal képp koo xamante ne nii bëggoo dégg muñal képp koo xamante ne nii bëgguloo say mbokk lëng la di la génne géew bi bu yeboo nga moytu ma voilà bu yeboo nga moytu ma loolu mooy kàddu yi nga xamante ne nii guy gi rotal na ko mu da nekkoon benn entretien boo xamante ni mi ngi ko doon séq ak sunu naataango boobu di Abdoulaye Diagne voilà ñu ciy jaajafal bu baax a baax waa journal bi di sunu làmb ndax kàddu yi foofu la ko rotale voilà mbokk yi seen ñaareelu ponk nak ci xibaaru lamb dañuy eh, daldi rek tàbbi ci waxi eh, kaddu yi nga xamante ni ki di sunu papa morfa dam voilà yëkëti nako ci combat bi nga xamante mo wara am samedi bi ñu dëgmal eh, dox ci diggante ambulance bu Thiès ak ki nga xamante modi moo wulli de bu bu Bawal voilà samedi lako Aziz ki di ñuy wax promoteur bi ñuy wax Assane Ndiaye moko organiser combat bi nak wara am fële ci stade Iba Mar Diop voilà ñu tuddé ko sax le choc des espoirs voilà diggante wulli de bu Bawal ak ambulance bi nga xamante ni moo nekk fële ci diwaanu Thiès nekk ci écurie de lutte bi ñuy wax gëm sa wayjur voilà ki nga xamante ni nag moo fi nekkoon ancien champion ci are wàllu arène bi mu ñu koy wax morfodam voilà joxe na ci nag xalaatam joxe na ci point de vue am voilà muy wax d' abord di jaajëfal bu baax a baax waa Bawal production di wax ni affiche bu excellent la ñu indil vraiment ci diggante ambulance ak wulli 2 mu ngi xamal ñu mu ngi xamal ni combat bu mën a neex la combat bu war a neex la sax waaw mais daal analyse bi mu ciy def mooy que ni xëy na buñ ko tegee rek ci wàllu expérience su làmb euh, ki nga xamante ni moo di euh, ambulance bu Thiès moom mooy ëpp tuuti expérience rek ki nga xamante ni moo di Wouly 2 parce que nag xëy na euh, wàllu adversaire yi nga xamante ni daje nañu ak ñoom ci wàllu làmb xaw nañu am ak wuute tuuti voilà comme ni ma ko souligné ci biir mooy que ni daal ambulance moom mooy ëpp stratégie tuuti voilà bu fekkee ni daal wàllu bëre la xëy na ambulance lañ mën a jox favori wax ni moo gën a xaw a xarañ tuuti ki nga xamante ni moo di Wouly 2 waaye nag muy wax ni ni la boo xamante ne nii ku xef ñàkk ndax dafa nekk ñaari mbër yoo xamante ne nii ay mbërum cong lañu voilà du ñu ay mbër yoo xamante ne nii dañuy arrière di reculer waaye ñoom ñaar ñëpp ay mbër offensif lañ yoo xamante ni dañuy dem muy xamal ne nit ñi daal ni combat boobu combat bu nar neex lay doon te ku yeex doo gis jël ndax combat bu nar a gaaw la doon kàddu yi mi ngi ko wax ki nga xamante ni moo di Boubacar Niang boo journal sunu làmb voilà mbokki internet yi seen ñetteelu ponku nak ci walu xibaaru lamb ba tay dañuy dess nak tay euh, ci ki nga xamanteni mom lañuy wax Omar Kan voilà ñepp gën ko xam ci rek rek nek euh, fële ci diwaanu Thiaroye nek mbeur bo xamanteni ni mbeur bo exemplaire la li tax ñu bëgg def tay taxaw setlu ci mom moy que ni euh, bien vrai que ñepp xam nañ ni rek rek wacc si ci geewu lamb bi nga xamanteni mom lañu tuddé tuddé tubbee d'or bëre dóor voilà wane ci bopam def ci def ci def ci ay preuve am d'ailleurs sax amna combat bo xamanteni instant bi bi ñu koy waajal digëntem ak Gris 2 waaye loolu taxul ngir euh, li kii di rëg-rëg tekki ngembam ci wàllu lutte simple voilà moom dugg ci arène bi taxul mu bàyyi li nga xamante ni moom moo di euh, lutte simple dañu koy gis weekend après weekend mi ngi ci mi ngi ci arène bi mi ngi ci mi ngi ci mbappat yi voilà saison ren bi vraiment quatre trophées yoo xamante ni rëg-rëg amagoom na ko ci wàllu wàllu wàllu bëre simple voilà plus de deux millions cinq cent mille francs rëg-rëg gañagum na ko ci lut simple vraiment mu nekk benn exemple boo xamante ne nii dañu koy jox xale yi nga xamante ni ñu ngi door a tàmbali di dugg ci wàllu làmb di leen wax ni daal nañu roy ci rëg-rëg ndax itam nag euh, jël sa lépp rek basé ko ci bëre dóor amaana saison bi mën nga def saison blanche voilà mën nga am benn combat képp ci at bi waaye daal ku ciy def nii rëg-rëg defe naa ni année blanche moom doo ko gaaw a def parce que moom fi mu toll nii quatre trophées yoo xamante ni yu différent la euh, taxañagum na ko ci atu ran bi voilà comme ni ma ko waxee sànq ñaari million euh, ñaari million ak gën wàll gañeegum na ko ci wàllu xaalis yóbbu biir këram toog ak moom terewul mu continuer ay entraînement am continuer tamit di préparer li nga xamante ni moo ni combat bi war a dox digganteem ak Gris 2 kon daal exemple la boo xamante ni képp koo xamante ni nii gune nga te nekk ci wàllu lamb ñu ngi lay wax ni la royal ci rëg-rëg ci làmb ji euh, dugg ci arène bi dem ci bëre dóor bi bu mu tax mukk nga ni bàyyi naa euh, li nga xamante ni moo di mbappat voilà dee leen mbappat mbëri dee leen mbappat mbëri dee leen mbappat voilà mbokkee ñu jeexale nag seen xibaaru làmb ci coow li nga xamante ne xëy na fan yii yëpp ñi ngi ci wax journal yi ñi ngi koy bind muy euh, coow li nga xamante ne moo desoon ci diggante combat bi waroon a am diggante Gris Bordeaux ak Bombardier voilà ki di Khalifa Dia di nekk ménageru Gris Bordeaux génnaat na tey ji tamit ci journal bi defaat beneen euh, beneen nëpp waxtaan voilà indi nag ay éclaircissement yu yaatoo yaatu voilà comme ni ko journal bi bindee Khalifa Dia revient à la charge voilà foofu loolu loolee mooy ay kàddoom tembe wala tembe wul fenn fudul ci ki nga xamanteni modi pap tialis fay parce que fim mu combat la boo xamanteni senegal gep gépp ñu ngi koy xaar bu fekke côté wa Mbour ñëpp xam nañ ni wa Mbour d'accord nañu ta joxe nañu senu kaddu muy xam leen day tamit ni wa Fass ñoom tamit nopi nañu wala wa Fass nopi nañu joxe nañu sen kaddu fim mu dal ki di pap tialis fay mo Faye ci yore guyam wala mu wax ni nak entretien bi nga xamanteni ni amon nañ ko ak promoteur bi di pap tialis fay ba ñu waxtaanee ba nopi daf leena a ni euh, après lu ci mënti xew

ndax ñëpp xam nañ ni amaa Baldé dañ ko doon jox dañ ko bëggoon a jox mbër bi ñuy wax Siteu voilà mu lànk ba tëdd ndaare wax ni carrément du ma ca du ma du ma bëri ak moom ndax du ma moromam du ma màppandoom te itam du ma classam boobee ba léegi nag ñu ngi dox kombaam ak tafaatin waaye daal boo moytuwul combat boobu bu taxawul ah di vraiment dina nekk pertement ci ki nga xamante ni moo di Ama Baldé ndax euh, daal yoonu yoonu année blanche daal la jëlagum fi mu toll nii voilà bu fekkee ni kombaam ak kii di tafaatin amul su boobaam waa Pikine wala boog ak kii di amaa Baldé Baldé euh, dana tàbbi ci année blanche te vraiment ñaanaluñ ko ko kon tamit li ñaan rek mooy combat boobu yàlla na taxaw ndax bu ñu sañoon mbër yëpp dañuy bëri ñu jeexale nag mbokk yi ak combat bi nga xamante ni a di Moussa Ndoye xam naa ne daan ci dellusiwaat incha allahu rabbi beneen bis gën ko yaatal ba mu yaatoo yaatu waaye rek am na ci ay kàddu yoo xamante ne euh, kii di Garga yëkkati na ko voilà di wax ni rek bu baax a baax a di indi ay victoire képp mooy li ko war parce que nag fi mu toll ci làmb moo voilà fi mu toll mooy leadership bu bu dóor dóoraat donc fi mu toll ni ah boo moytuwul bu daanoo boo moytuwul dal dina tek ci ngembam mom ki mi nga xamanteni moy gargam bossé voilà Parcelles Assainies gep mi ngi ci ginnawam instant bi nak mission bi dal ci ay loxom la nek liko war moy daan waye tamit xamna ni Moussa Ndoye du ko ko bayel ndax it warul yomb ci mom mbokk li lañ leen indiloon tay ci sen xibaaru lamb voilà don ngeen ko don am nak fi ci site bi ngeen tànnal sen bop di Sénégal 4 TV don ci ànd ak sen mbokk sen xarit sen doomu nday Assane Dia di leen jox dig daje suba inshallah rabbi ci benen waxtanu lamb assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh बरकत हो